parce que ku ci nekk bu ñu duggee ci dernier thème bi soo waxee sa xalaat ba pare nga tàgguwaale temps bi jeex na parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps s'il vous plaît d'accord on est d'accord parce que affaire affaire daf ma soxal parce que dama dama xam lu bëri. maintenant je je ma ñëw si ma ñëw si dernier thème bi ma ñëw si dernier thème bi. sànq maa ngi koy wax. <laughs> lii nag mooy censure Ah oui, ça c'est la censure. De la maison. Ah, tout le monde dit. On da nga wax sa xalaat da nga wax sa xalaat mais damay ñëw ci dernier question. ñu wax la communication du président. temps de parole. Ah. loolu sa secrétaire de choix. Il va le communiquer dans son temps de parole. Waaw, voilà, loolu laa ko wax. d' accord sëñ Saliou. Hmm. s' te plaît nga may ma ko rek dégg nga. ah non non non. ko may rek bii le délai du mai. ah on en reparle ah par rapport ak. Euh, de sama temps parole ci loolu laa euh, bi pour ak y' a une problématique qui a été signalée ici. non non sëñ Saliou léegi il faut que ma dugg si thématique bi donc da ngay bëgg ma tëj sa micro s' il te plaît. ba ah, pare ma dugg ci waaw dugg ci man donc baa ma dugg ci après ñu wax ci après ah. bu dëgg ah s' il te plaît. le délai mai par le président Diomaye Faye mi ngi daal di yegg si du yàgg semaine prochaine on se pose la question de savoir est-ce que gouvernement bi am levier véritablement pour baisser le coût de la vie déjà. voilà maintenant may naa la deux minutes. pour nga wax si sa affaire une minute pour nga wax si sa lii mu jeex. dama ne Yacine tu ah, je suis obligée de te l'imposer non du ma ko nangu de loolu moom je le dis clairement. non moom là je suis non je suis clair. ou soit tu fermes mon micro je m'en vais mais damay wax ci affaire bi parce que tout le monde a parlé et puis y ne trois minutes donc légitimement j'ai trois minutes bu la neexee nag dernier thème bi du ma ci wax mais bii moom dafa ma soxal affaire u Amadou Ba Macky mhm. premier jour bu ñu toogee fii Omar Faye ñu ne Amadou Ba mooy candidat APR fii laa toog fii ma ne c'est pas son candidat jour bi ñu tegee bun Ablaye John ma ne leen le candidat yi laa fii man ngeen ma vaar papis vaar leen ma maa déglu waaw vaar leen ma maa taxoon fii wax ko fii wax ko waxaat ko bi ma ko waxee fii am na benn affaire bu toogoon fii mu ne Serigne Saliou li ngay wax da ngay wax lu la neex man ne ko dama ne c'est pas son candidat l'histoire m'a donné raison parce que xamoon naa parce que xamul tax Amadou Ba pour ñu samp ko il a fallu presque presque ñaata mais presque plus de deux mois pour choisir ko qu'est-ce qui s'est passé boobu ba léegi cest lan moo tënkoon Macky Sall et pourtant dañ ne Macky Sall dañ la jox nañ la carte blanche pour pour ça Macky daal ne noo day consulter ay kii et cetera mais carte blanche su fekkee ne moom loon mais il faut ngeen remonter pour xool histoire Macky Sall ak ak ak Amadou Ba. Hmm. Macky Sall dafa dax Amadou Ba ci gouvernement bi bi muy dellu si premier ministre c' était le premier ministre par défaut parce que kañu kañu kañu kañu tànnoon finalement affaire bi antuwul Amadou boo déggee sax li muy non dafa ndànk rek Amadou Ba boo déggee. waaw may may ma rek waxee. parce que j'étais dans le. c'est finalement ce matin que le président. mooy amul kenn ku ñu tànnoon waaw dafa ndànk rek. amul kenn ku le premier ministre par défaut et ça je l'avais dit ici. waaw ah, d'accord may naa la loolu moom may naa may mais xam ngeen ne. amul kenn ku ñu tànnoon yow Omar. ah Omar Omar ça n'a jamais si Omar yow xam nga ne yow xam nga ne ba mu premier ministre seen diggante musul neex c'est-à-dire ñoom seen diggante dañ ko doon maslaa rek. et je de gis nga les pontes même du parti bi ñuy jël bi ñu bi ñu ne dañuy choisir Amadou Ba les pontes parti c'est-à-dire quand je dis ñi nga xamante ne ñii am wax les légitimistes ñooñu ils n'ont jamais été d'accord sur ce choix ñoo xam ni clairement dañu waxoon ne même su fekkee ne ñoom Amadou Ba c'est lui qui est le candidat ils ne vont jamais battre boo gisee ñoom Abdou mooy tous ces gens-là se s'étaient parce qu'il y un problème de légitimité. non non dama ne il s'était révolté contre le contre ce choix loolu dafa am lu mu détente gis nga lii nday Fatou wax nii nii affaire bi sax jugul foofu xam fan la jógee gis nga hmm. Amadou Ba bi mu jógee fii dem France hmm. foofu la affaire ba jógee bi Amadou Ba jógee fii dem France ku ji kii ba rencontré fa premier ministre ba Mhm. boobu la mbir yi commencé. lu fa xew il y a eu des choses qui sont passées non loolu du waxtaanu fii. non da wax non non non non loolu du waxtaanu fii dama xam nga ne y a des choses dafa nànk rek ma ñëw y a des choses qui se sont passées. mais dis-nous ces choses là. mais mais mais waaw waaw may ma waaw may ma ñëw rek yow tamit. non wax ñu chose yi leeral rek. bàyyil ah, rek ma ñëw xam nga ma na loo xam ne ndax yàlla man ma xam. Omar Omar quand des gens comme Madiambal Diagne qui sont au du pouvoir l'Abdoulaye quand ils disent que un jour les deux hommes vont en parler ñoom seen bopp xam nañ ko c'est-à-dire ne prendront pas la responsabilité waxal leen ko mais ñoom dañ ne ñoom nañ ko waxal seen bopp mais ñoom ñoo lu gën a xam. Hmm. ñoom xam nañ ce qui s'est passé. entre les deux le changement là de Macky par la suite. yow tey écouté Ablaye Sow non dama ne. man tey pour mot tey écouté Ablaye Sow. non déglu ma ko. ci li ngeen wax fii rek laa la non ci li ngeen wax la fii yow nee na Macky lii ak lii la ma Amadou Ba def. moom laa la wax jàpp na ne naa ne lii. waaw waaw tax ñu bàyyi Amadou dañu ko war a jàppale. donc c'était pas moom laa mais dama gis nga la Macky di la Macky di wax. ci penc mi. waaw waaw Omar bàyyi ma ma eggale dama ne la Macky di wax. Ablaye Sow du ko eggale ci penc mi. Mm. du ko wax ci penc mi y a des choses. graves qui sont passées. soo xoolee soo soo soo soo xoolee déjà. xam nga ma euh, bàyyi rek. waaw non non xam nga man wax waxewuma foofu dama ne. quest qui a expliqué le choix. ministre de l'intérieur. Mm-hmm. on a pris Matar Cissé. Mm-hmm. très intègre. bañ koy jël. di ko yóbbu fële. yow xam nga c'est autodéclaré intègre d'après l'avoir insulté sur le cas acculé. man dans les plateaux man mës ma dégg ma saaga Matar Cissé man mës ko dégg ma saaga ko. non attends que mës nga dégg ma saaga Matar Cissé. mës nga ko dégg ah quand même. aujourd'hui waxal ma lu ma wax yow tamit. non ku ngeen saaga tey moom. ne waaw d'accord mais euh, Omar euh, doon ma wàcceel micro Omar s'il vous oh, vous plaît yow tamit ah. quand on a placé là-bas Matar Cissé te nga les rapports qu'il y avait eu entre Matar ak euh, Amadou Ba ça a toujours été des des rapports tendus mm. donc déjà au niveau du ministère de l'Intérieur am na lu ñu fa ku ñu fa jëlee teg ko foofu te am na des changements que Macky a fait au niveau même des renseignements donc y a eu beaucoup de choses yoo xam ne qui sont passées lecture yooyu daal dafa am lu mu joxe. au point que Macky ne pouvait pas avoir Amadou Ba comme candidat. Yeah. et c'est ça qui a expliqué pourquoi Macky en fin de compte daal di téye loxoom. maintenant on peut discuter nag ci loolu xamul la ñu waru woon def loolu waru ko woon ko de mm. kooku yéen seen kii politique la. mais yéen ñi ngeen xamante ne yéen a wax ne Macky jox nañ la carte blanche ki nga mu tegal la sa candidat. bu demee benn instant bi moom mu ne day rocci candidat bi yéen amatu leen lu ngeen ci waroon wax. merci beaucoup parce que tànnin bi ça n'a pas été démocratique. loolu am wax na fi léegi ni ñuy tànnee c'est pas démocratique moo tax boo xoolee très souvent aussi kañ ñu naan dox nañ la carte blanche. carte blanche boobu daf koy téye ba au point su ko neexee mu ne kii maa ko dugal dama koy rocciwaat. et c'est ça qui s'est passé avec Amadou Ba. maintenant le fond du problème un jour yi. gën nañ ko teg ci table ji. merci beaucoup. Euh, euh, ah. dans tous les partis. mais on n'est plus. moo indi am na si. non non moo compris. moo indi lépp et que tout ça ça a rapport ak li nga xam ne mooy le dossier des 94 milliards. et aussi l' implication. kon kon affaire bi bu ñu la politique bi dafa am importance.